effectivement Michel Silva chef de parti set jariñ sama réew donc li ma mën jàpp ci dialogue bi mooy euh, d'abord exprimer un sentiment de fierté et dire aussi quelque part de désolation désolation pourquoi parce que am na ñoo xam ne tey seen place feeñ na fii waroon nañu teew parce que li ñuy jooytu di ko ñaxtu ñun moom lañ doon tënk di ci waxtaan donc buñ ñëwoon lépp dañ ko doon yeggali mottali ko ku nekk mu ñibbi ci jàmm parce que jàmmu Sénégal moo gën lu ne lu ñu mën a am lu ne muy ndam muy defet jàmmu Sénégal bu ci génnee baax na. alors tey sentiment de fierté bi du leneen lu dul boo xoolee en la majorité li ñu wax mooy nañu fexe élection yi ñu ñu taxawal ko ci mois de juin. nañu fexe élection yi ñu taxawal ko ci mois de juin alors élection yi ci mois de juin boobu date bi ci gën a génn mooy le 2 juin le 2 juin yàggatul président de la république ñun ñëpp gis nañ ko dégg nañ ko ba muy wax moom ci boppam bëgg na jël lenge bi. dénk ko keneen jébbal ko ki kay ki kay wutu. mais est-ce que cette manière de faire ce n'est pas pousser le président de la république ci benn impasse. Euh, comme ban par euh, exemple. tey ñu war ko may ñu ne ko encore président toogaatal deux mois ci koo xamante ne nee na doy na sax est-ce que nekku ñu di ko pousse ci loo xamante ni xëy na moom mii xamu ko. selon selon selon selon le code électoral xam nga ne élection mënoo ko organiser avant quatre-vingts jours au minimum le 2 juin tu as quatre-vingt-seize jours. kon nañu tënku ci ci règle ak code code électoral bi ñu bañ a wàcc yoon wax na ko démb lépp lu ñuy def nañ ko teg ci yoon pour ëllëg moo tax wëy bu la wëy la wëy buy dem te aussi l'histoire nous nous nous nous rattrapera dans l'avenir xale yi fiy ñëw dinañ ñu gën a xarañ dinañ ñu gën a màcc te bu boobaa dinañ sukkandiku ci lii xew nii ren pour wax ni lii amoon na fi parce que tout un vécu donne des leçons te lii ñu dund musuñu ko dund tey lañ ko dund te génn nañ ci ji jàmm am na yeneen réew yu mu doon doon lii dañ heure bi duñ ko wax kon dañuy gërëm le présent mais tey ñu wax ni message bi na ko population bi ñëpp jël ak apparaître ko parce que dafa am solo jàmm Sénégal moo gën lu ne te élection day am bu neexee yàlla ci ci ci diir bu dul yàgg lii proposition la war na yegg ba ci assemblée te yemul foofu mooy am na ñoo xam ne nii tey c'est des recalés ñuy wax ay spoliés am ñoo xam ne nii tey dañ leen écarté ci processus bi ñooñu ñëpp président boole na leen ci waxtaan bi ñu tënk ngir que ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk seen droit ñu rétablir leen dans leur droit ñi nga xam ne nag comme li ñu wax yoon du maye nangu le principe de non rétroactivité yoon du maye nangu ñooñu ñu bàyyi leen ci seen droit bu ko defee élection yi am ci jàmm ak salaam. jërëjëf jërëjëf koy euh, gërëm.